Ah, xii naan tamit eh, xeexu njaago du jeex njaago lan moo tax njaago ñu naan xeexu njaago du jeex lu waral loolu mari njaago eh, laace nga laace wu mu xóotu hmm. ndax laace mu xóotu njaago du tooñu nga tooñu benn njaago tooñu nga fukk njaago ah! moo tax xeexu njaago du jeexu oh, dina jëlu mbaamu bi mu tegu ko fële mu ñëw mu song la mu woo bàjjanu papa ndijaay umpaañu lépp léeru mu fero mu ñëw ah macha nee nañ njaago des fois nga xuloog moom. Mhm. ba fàtte ba affaire yi am at. Mhm. da ngay jékki-jékki rek dégg ku la song ci mbedd mi. lu xew waaw lu xew mooy tooñu bi nga ko tooñu moom gis na rek day déparé bi ndax du ah, tooñu. ay la ay la nga jotee ak njaago. <laughs> mu Awa Sadio mës nga jotee ak njaago. <laughs> yàlla tere. musuma dama demee Grand Yoff naan. Mm. di di leen tooñ. naan leen mm. naga lank naa obir ca géew ba. Mm. dootuma ko defati. <laughs> lu la def. koj ma. looloo waxuma dara. Eh, Grand Yoff yow eh. nga si biir njaago yi. waaw foofu romb nga nga wax. rek njaago bu tuuti mu ngi raam mu dal sa kaw. Ah. nga nga salaamaaleykum njaago mi wax na maaleykum salaam. njaago du tooñu de. dafa munu tooñ. Ah, bàyyi leen ngeen tooñu njaago mari eh. njaago du tooñu. léegi na woo Jean ana Jean. waaw Jean ah Jean moom mi ngi doxaane rek man ma. liggéey mu moom ana Jean ma jox ko mu jënd mbaam mu doxaane ma ñëw. waaw. waaw Jean moom dafa doxaan rek doxaan. doxaan day doxaan ah. ah. ma ne sonn na de. est-ce que daf la bëgg a utal wujju. njaago du wuje. Hmm. njaago du wuje njaago. Ah. ma ne du ma wuje ma wuje rek ma door ma matt xotu taat. <laughs> bu ko waxati mari waaw waaw su ma lijaay mi ngi fii si Casamance. Hmm. mu ah, dugal ko si tuur bi rek mu tëye bagage góoru bi. déedéet mu takk ko mu woy ko comme sayu mbopp. njaago du wujje kon. Eh, njaago bu gulu boobu de doomu bu ndaw bi sax day wujje mu xeex foofu. Ah, waaw waaw.